ku ko jaamu ci xam. ku ko jaamu ci xam. danga daj ngërëmam. danga daj ngërëmam. om. tar. om tar. om tar. asama. jabo. katif. sudur. mizan. tar. mizan. tar. ميزان ترك اعتدال الثاني أولا أسرير دقمنا صدور أسرير صدور تكبير حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سلام صلاة سلام صلاة الله سلام صلاة الله سلام صلاة الله سلام صلاة الله سلام صلاة الله سلام صلاة ginnaaw salaatullah salaamun takbir allahu akbar takbir allahu akbar tarik amam tarik السماء جبهة كتيف صدور ميزان ترك ميزان

salaatullah salaamun salaatullah salaamun salaatullah salaamun salaatullah salaamun salaatullah salaamun ala على ياسين حبيب على ياسين حبيب توصلنا ببسم وبالهادي رسول وكل مجاهد بأهل البدر يا الله salaatullah salaamun salaatullah salaamun salaatullah salaamun حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بريالا يا ديكوبا yaa allahu ndaw laadi doomi jullit saa bind doon bindiw nit buur bi ma def ma diinit xam ngeen ne buur la bu baax muhammad sallallahu la ilaha illallah demal demal demal حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام عليكم cérémonie la boo xam ne dañ ciy teral alquran waaye dañ ciy teral xale yi nga xam ne ñoo mokkal alquranul karim ñu ko daan defee fajaa nag tey ñu am ak soppeeku tuuti ndax kenn ku ne xam nga ne ginnaaw bi daal di nekkee fee ba xaw a xat ngir yaatal liggéey bi dañoo def benn faron fii diwaan fi lañ ko indi ñu tuddee ko soxna muslimatu mbakke bintu cheikhul xadim kon tey ñoom lañu fekk si ñu war ñoo dalal incha allahu taala alif lam mim zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin allazina yu ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم من ربهم وأولئك هم المفلحون يدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي

les إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وطئا وأقوم قيلا إن لك في النار واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم يا أهل القرآن دعاة السلام لعباد الله ما شاء الله أولا قالوا يجب أن ينعوا يترسل سلام سلام يا أهل القرآن يا أهل القرآن tabaraka ma sha Allah taala ndax bu baax salaamun أهل القرآن دعاة السلام لعباد الله ما شاء الله أولا قالوا يبقى من أو سلام سلام يا أهل القرآن يا أهل القرآن macha allah taala ndax lu baax. salaamun. ya ahlal qur'an. salaam salaam ya ahlal qur'an du'aat as-salaam li يا أهل القرآن سلام سلام يا أهل القرآن دعاء السلام لعباد الله أنتم كرام أنتم عظام أنتم حكام قوموا تكريما قوموا تعظيما قوموا احترا من آه حفاظ القرآن آه تكبير تكبير آه تكبير تكبير تكبير تكبير تكبير تكبير يا أهل القرآن di fàttali ne rek xale yi nga xam ne ñoo ne ci kaw wala kilifa yi nii yi nga xam ne ñoo ci kaw kenn ku ci nekk nga mokkalee yóbbu leen ci ay barab ñu nattu la ci téere bi ba yëg téere bi leer na naan ñi ci sa bopp ñu doog a mën a taxawal li mel nii ngir delloo sunu borom waaye tatagal niti alquran yi waaye feeñal leen ci eh, ñu nekk woon ci daal yi comme ni koy waxee toujours rek xam naa ñi ngi sàkku ñi nga xam ne ñoo ne ci jataay bi ñi nga xam ne seen doom mokkal na alquran ngir xale bu taree ba noppi ñu war ko jox eh, dañuy sàkku ci ñu féete fële fi ma jàkkaarlool foofu lay joxee shahada incha allah euh, ndax ñu mën a gagner du temps ndax kenn ku ne xam nga ne fukki xale ak juróom-ñeent du ay caaxaan niñ ko programme woon mooy xale bu ci ne sëñ Omar ak sëñ Fallou ma la toog nga xam ne ñoo yor wàllum tare bi kenn ku ne tare ñetti barab waaye bi ñu xoolee jataay bi ak ni mu tëddee ak jant bi ni muy doxee dañuy yëg ne kenn ku ci ne mënoo tare li nga xam ne moom lañ programmé woon ñu ne dañ koo war a wàññi wàññi gu ñu koy wàññi nag moo ñu yóbbu ci lépp loo xam ne tegoon nañ ko ci ay programme yoo xam ne ci jataay bi la waroon a doxee dañ koy wàññi incha allahu taala su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel ñun ñëpp rek su ko defee bu xale bi taree ba noppi pour ñu mën a gagner du temps dañuy continuer suñu liggéey ñi war a joxe shahada ak ko war ñu xaw a féete benn continuer seen i photo ya ca aju ñun ñu mën a continuer suñu programme incha allah beneen bi ci tegaan mooy suñu xol wax na ko léegi xale buy tari dañuy bëgg li nga xam ne moom la koy waajuram di jox ngir kontaan ci moom mu indi ko fii ci table bi ndax li may wax toujours rek xale yi moom suñuy xale la ñoo bokk mbuus lépp loolu fi teg buñ delluwaatee ci daal yi danañ xool niñ ko waxtaanee incha allah kon képp ko xam ne am nga looy jox xale bi tari nga indi ko fii ci taaru bi incha allahu taala ak sëñ Omar su ko defee loola dana bokk ci liy defar liggéey bi beneen bi ci topp mooy taabal bi ñu nekk du pour lettre yi képp koo xam ne am na leetar booy yóbbu buntu tante bi soxna Fatimatu Ndour Nefa ak soxna ñoom ñooñu képp koo xam am na lettre boo fa yóbbu nga yóbbu ko fa ndax foofa mooy bureau secrétariat bi képp koo xam ne am na looy laaj tamit du jëm ci wàllu daara ji wala nga bëgg fee indi xale boo demee incha allahu taala lépp danañ la ko leeralal waaye képp koo xam ne war ngaa indi lu jëm ci daara ji te nga xam ne da nga koo warloog daara ji muy ay charge kenn ku ne xamanteel la cinq te bureau bi dañ koo tëj fii lañ dañoo transféré bureau bi fii ci base bi képp koo xam ne da ngaa war a fay incha allahu taala ñu ngi sàkku boo ñëwee ak boo ñëw dee dégg suñ nga jaar fële ci biir secrétariat ba bàyyi fa li nga xam ne moom la daal yi dundee ak ñi fi nekkal ñu ngi koy sàkku ci ñi nga xam ñoo fi teew ñëpp kon xam naa incha allahu taala dañuy euh, dem ci programme bi ak sëñ Omar Kane ak sëriñ Fallou Ndiaye di leen ndokkeel ndax liggéey bi rafet na su ko defee ñoom ñu dem ci xale yi euh, xale bu wàcc danañu woo ki jox si shahada mu jox la ko ñu continuer liggéey bi ndax macha allah liggéey bi daal rafet te yaatu te ndax boo xoolee xale yi nga xam ne ñoo fi jaar suba ba léegi kenn ku ci nekk da bu toogoon sol lu wuuteeg li nga xam ne ñii coow ci moom lañ sol mën ngaa jàpp ne kii ñi ñi mokkal ci la bokk ndax alxuraan ju rafet te wér te neex macha allahu taala ci ndokkeel sëñ Mor Talla waaye di ndokkeel sëñ yi nga xam ne ñoom la ko àndal ñëpp di ñaan sama mu defal leen tawfiqu ñu gën a mën yaatal gën a mën a rafetal ndax mbir mi rafet na macha allahu taala الكافرين إن ربكم